À l'établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre Dakar téléphone 33 864 75 15. ba doon tàmbalee kuréel gi ba léegi loolu yow ko ànd ba yàlla teg la ci kanamu parcelle bàyyi woon ba léegi ngay àndal ñun di ko tikko di ñëw di àndal ñun toog fii ba guddi di nekk ci place bii ba guddi yaa ngi rek ko fi def. loolu ngi koy seedal nit ñëpp seedal ko taalibe yi ne doo li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko sëñ Tuubaa defal. le maire des parcelles monsieur Moussa Sy moom ci gën a gën a toog monsieur le maire. aw bi daal di ne seetaan nga bi laa xamaa nga raxam ginnaaw bu ñu santee suñu borom ci sant bi dara bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gërëm suñu waaj yi ñu ngi nuyu suñu kilifa suñu sëriñ Serigne Fallou Mbacké ibnu Serigne Abdou Khadr radiyallahu taala anhu di nuyu jëwriñ yi topp ci yëpp ànd ak moom def délégation bu mag jógee ci xalif général des Mourides suñu kilifa suñu xalif général Serigne Mountakha Mbacké Serigne Touba fii ci réew di nuyu délégation bi jóge Touba yëpp di nuyu président Mbackiou Faye di nuyu président Makhtar Diouf ak kuréelu parcelle bi nga xam ne moo ñu jiite mairie parcelle ak mairie Yoff bi nga xam ne suñu mag suñu xarit le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr représente bi son excellence sur le président de la République jiite ko ay membre kuréel bi lañu ñu yaatal ñu ci boole ñu ci liggéey bi donc kaddu yi du gudd kaddu cant lay doon cant bu baax suñu borom ñu ñu may ren ñu fekkewaat vingt-cinquième édition ah di ko ñaan yàlla mu may bu déwénee ñu ñu fi teew ñëpp yàlla bu kenn wute yàlla ñu fi teewaat ñun ñëpp mbooloo mi gën yokk nu muy yokkoo at bu nekk borom bés bi ci barke Seydina Muhammad mën na ko yàlla nañ ko daal defal ngëneel ak cant rek a ci am bés Sëñ Tuubaa bi fàttaliku julli géej gi ngëneel ak cant rek a ci xam nañ ko parce que mën nañu wax ni lu mu néew néew ñaar fukki at ak benn yëpp vingt cinq ans fekkee nañ ko donc boobu amuñu dox ba tànk donc bu yàlla defee diggante bi nekk ñaari yoon meeru parcelle ba bokk ci kuréel bi di màggal bés bi di teg baas yi teg chaise yi teeru gan yi ndawu président ndawu bi gox bi di changé ci environnement am ci éclairage am ci fànn yëpp ah di sant Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba bu déwénee bu kenn manqué yàlla ñu teewlu ñëpp président Matar kuréel bi sant naa leen gërëm naa leen ci turu waa Parcelles Assainies yëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. waa Cheikh monsieur Moussa Sy ci turu Cheikh Makhtar Diouf.